J'ai trop mal. On a trop mal. Wallahi l'azim, j'ai pas voulu faire la vidéo. Mais sama xol moo jeex parce que lii àdduna dara jaru ko. arène nationale xam nañ fi sama oto di gaare kuy dugg arène nationale xam nga fi sama oto di gaare. sama oto lañ fekk fi mu taxaw gis nga. ñu toj sama pare-brise arrière. am luñ ci jot. toj nañ sama pare-brise arrière sama caméra bi may liggéeyee Bantamba man maa ko moom. caméra bi may Bantamba man maa ko moom micro bi may waxee Bantamba man maa ko moom. sama caméra ak sama micro dañ na ci té amna lo xamanteni xamante ni warul am fi aduna la dara jarul lu ñaaw jarul jarul yenn yi nañu xolaat amna lo xamanteni xamante ñu ngi koy def buñ fayonté mën na ñaaw mi lan moko jar ci aduna toj pour lan boo yëgatee affaire yi day commencé tojaat Yalla baax kiko ki ko def nag yàlla na ma yàlla ate ak moom yàlla baax na. Hmm. j'ai trop mal. am naa trop lu ma naxari. Hmm. wallaahi la azim j'ai pas voulu faire la vidéo mais sama xol moo jeex parce que lii àdduna dara jaru arène nationale xam nañ fi sama oto di gaare kuy dugg arène nationale xam nga sama oto di gaare sama oto lañ fekk fi mu taxaw gis nga ñu toj sama pare arrière. am luñ ci jot toj nañ sama para brise arrière sama caméra bi may liggéeyee bandama man mako mom uh-huh. caméra bi may bandama man mako mom micro bi may waxé bandama man mako mom sama caméra ak sama micro dañ na ci te am na loo xamante am ci aduna la dara jarul lu ñaaw jarul jarul yenn yi nañu xolaat amna lo xamanteni ñing ne koy def buñ fayonté mën na ñaaw mi lan moko jar ci aduna toj pour lan. boo yëgatee affaire yi day commencé tojaan yàlla baax na ki ko def nag yàlla la ma yàlla ate ak moom yàlla baax na